L'autoroute Thiès-Touba. Ce projet Ila-Touba est unique euh, en son genre, unique d'abord par la taille du projet. Le volume des investissements, c'est la première fois que notre pays, en un seul projet, engage près de 400 milliards de francs CFA. président y a le ko Il y Touba ko ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ñëpp koy bokk ñépp nit ñëpp ko bokk kon nekk ci taalibe yëpp ñu yëgandoo ko am ci mbégte eh, gàttandoo ko mbégte eh, akuk cant te ñaaral ko itam yàlla suñu sàmm ko te te wéeral ko kàttanal ko ba mu àggale yéeneem. bokki taalibe képp koo xam ne yàlla man loo na la ko nga ñëw teew ci bis boobu yi ngir eh, sant la ko yàlla sant la ko Serigne Touba ci xéewal googu yi nga xam ne. ci jiiti réew mi def na ko fi te defar ko Sëriñ Tuubaa te moom mu fii Sëriñ Tuubaa war ko seere ngir ñëpp dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin gannaaw ba ñu ko liggéeyee ba mu àgg nag ñu fas yéene koo inauguré ñaar fukki fan ci weeru décembre gannaaw bu 15 heures jotee ci diggante Daaru Sow ak Kànka bis boobu nag mbokk yi di bis boo xamante ne bii Serigne Mountakha Mbacké di xalif général kullu murit mi ngi koy fàttali mbooleem taalibe yi waaye nag di sàkku ñu teg lépp rek ci yar ak teggin akuk dal ñuy sàkku itam ci mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo fa fas yéene teew sàmmonte ak warmay dëkk bu sell bi di Touba to my